temps pour les dignitaires du défunt régime euh, ci kanam nag ki nga xam ne moom mooy doyen dina ko daal di yaatal euh, tey nag ñaari ponk yooyu Kourouzitaa la ñu fas yéene waxtaane ci kanam tuuti ñu yaatal ko waaye laata loolu dañuy dem jëli la revue des ah, titres ah rubrique société euh, tey euh, waa d'accord waaye rubrique société kon la ñuy jeexale ak tabaski ces ménages ki risque de voler en éclat tey nag Tapenda nekk fi waaye dinañ ko waxtaanee ci biir plateau bi mu doon suñu ponk bu mujj kon ci li nga xam ni moom mooy émission bët set wante laata loolu comme ni mu ko waxee léegi dañuy jëli la revue des titres nekk li nga xam ne moo gën a fës ci yëglekaay yi. merci beaucoup Rama ci yi mi ngi noonu ponk yu am solo yi Rama énuméré léegi dinañ ko waxtaanee nees laata loolu dañuy jëli sunu revue des titres di si ànd ak moom avec la complicité de la régie tout juste après le jingle. voilà euh, cosita euh, ma lay remercier bu baax euh, di nuyuwaat mbokk internet yi ñu door la revue des titres li gën a fës ci yëglekaay yi comme à nag ñu koy dooree ak journal l'évidence mi xëyee Ousmane Sonko et la com atout ou défaut mu mel ni nag communication bu Ousmane Sonko nag jamono ji ñu bëri ñi ngi koy interpréter ku ci nekk di ci joxe sa xalaat ñi jàpp ni ki nga xam ne moom mooy Ousmane Sonko li muy communiquer dafa bëri ñi jàpp ni boobule communication lu war la ci koo xam ni. premier ministre la ñu daal di jàll ci beneenu xët di xëtuk direct news moom nag tey fa mu fësal xëtam bu njëkk euh, mooy fële nga xam ne moom mooy ca euh, Palestine ji crise bi am ci seen diggante ak Israël mu jàppee nag li nga xam ne moom moo fa xew euh, génocide génocide à Gaza en Palestine l'humanité assassinée mu mel ni nag nit ñu bari ñi nga xam ne ña ngay faatu foofule ñii di direct news nag génocide la ñu ko daal di jàppee l'observateur ci la ñuy daal jàll ñëw ci rapport renversant postures euh, religieuses et politiques tey nag euh, comme ni nga ko waxee sànq nag euh, moom mooy yooyu les véhicules nga xam ne nag euh, jamono jile ñi ngi koy jëlaat ci yenn religieux yi ak politique yi nga xam ne nag dañoo fare woon ci nguur gi fi jógee enquête yéen kaay ñëw ci pétrole gaz bi nga xam ne nag comme ni ñu ko xamee Sénégal nag am na premier baril de pétrole am lundi bii ñu génn nag la ñu ko daal di annoncé enquête yéen kaay xëy ci chance et xëy ci li nga xam ne nag moom mooy avantage ak li nga xam ne mën nañoo jural li nga xam ne moom mooy euh, pétrole bi fi nga xam ni moom mooy euh, Sénégal Walf Quotidien ci la ñuy daal di jàll wax ci avis à tiers détenteur le fisc bloque euh, les comptes de Walf mu mel ne nag wàllum fiscalité jamono ji li ñu koy dégg bari na torop ci li nga xam ne moom mooy groupe de presse yi la Walf Quotidien moom wax ni nag ñi nga xam ne ñoom ñooy Walfadjri seen compte yi dañu ko daal bloqué. source a ci la ñu daal di jàll ñëw li eh, wax ci le coup KO contre la pression en gestation ba tey compte bancaire de Walfadjiri eh, bloqué eh, ci la daal di xëy ñi nga xam ne ñoom ñoo groupe de presse bile ñu daal di bloqué seen ay contre ngir nag ab ab redressement fiscal boo xam ni dal na ci seen kaw bés bi le jour ci la ñuy daal di jàll wax ci élargissement de l'assiette fiscale les recettes de la BM foofu nag le bés bi le jour daal di xëy fësal li nga xam ne moom mooy xëtam bu njëkk euh, libération yéen kaay xëy xëy ci champ pétrolier de Sangomar Petrosen a emprunté 450 millions de dollars à Worldside ba tey nag libération mi ngi àddu euh, ba tey nag ci société bi di Worldside bokk ci ñi nga xam ne ñoom ñooy euh, exploité li nga xam ni moom mooy ak raffiné li nga xam ne moom mooy pétrole bi fii ci Sénégal wax nag ci société bi nga xam ne moom mooy société sénégalaise bi di seen wax ni 450 millions de dollars euh, la ñu àbb ñi nga xam ne ñoom ñooy waa World Side le point yéenekaay ñëw ci Ousmane euh, Sonko le héros de la révolution démocratique euh, souverainiste euh, et panafricaniste ou l'école de la vertu politique tey le point euh, ci loolu la xëy def nag ak jàngat bu yaatu ci ki nga xam ni moom mooy Ousmane Sonko différents points yi nga xam ne nag ñi ngi koy gis ci actuel premier ministre bile révélation yéen kaay ñëw ba tey ci tabaski 2024 bi nga xam ne nak on est à jour jours de de la date les prix du transport flambe mu mel ni nag loolu yàgg nañ di ko gis fi nga xam ni euh, fi moom mooy euh, Sénégal bu euh, événement yu mel ni tabaski jotee li nga xam ni moom mooy dem beeg dikk bi ñii di chauffeur yi dañu daal di yokk lii di paas yi li quotidien ci la ñuy daal di jàll wax ci baisse des prix des denrées dénouement ce jeudi mooy mooy li ñu wax sànq rek ki nga xam ni moom mooy Ousmane Sonko dina ci daal di nag àddu fële nga xam ni moom mooy ca primature wax nag ci wàññi ki nga xam ni nar nañ ko wàññi li nga xam ni moom mooy dund gi le soleil du quotidien national ci la ñu daal di jàll wax ci euh, le chef de l'État sur la sur la première extraction de pétrole du champ de Sangomar c'est un moment historique loolu nag la daal di euh, jàpp ki nga xam ni moom mooy président de la république di Bassirou Diomaye Faye moom moo daal di yëkkati yooyu les kàddu xibaari tàggat yaram euh, ci la ñuy daal di àddu wax ci stade yéenekaay bi daal di samp ab laaj wax ni quel avenir pour Sadio Mané xam ngeen ni Sadio ma ngay évoluer fële xam ne moom mooy championnat bu Arabie Saoudite tamit mercato bile euh, ci lay daal di addu wax ni euh, jamono ji ban avenir nag la international sénégalais bile euh, nara am. ñu daal di jàll euh, ba tey nag ci euh, ñi nga xam ne moom mooy l'évidence quotidien mi xëy ci beneenu xëtam na ak nataalu kii di oustaz Modou Fall sorti contre euh, le mbaraan tabaski Modou Fall savonné par les filles mu mel ni nag yooyu le kàddu mu yëkkati wax ni nag ñi nga xam ne ñoom ñooy xale yu góor yi waruñu jox dara lii di jigéen ñi jëm ci wàllum tabaski ak yu demee noonu am na ay jigéen yu ci gis seen bopp nag ba di koy attaqué beneenu xëtuk l'évidence gis nañ ci kii di Gabriel Kane visé par les par plusieurs plaintes Gabriel Kane sous le coup d'un mandat ñu ne ñu ngi wax ni nag ki nga xam ne moom mooy féministe bi le bu moyul nag euh, mandat d'arrêt dina daal di euh, dal euh, ci kawam xët gu mujj gu l'évidence nag ñi ngi ciy gis lutte contre l'insécurité routière les propositions de l'ANASER loolu nag la daal di la ñu daal di fësal ci seen xët gu mujj jamono ji nag nga xam ne nit ñi dañu emprunté yoon yi ngir dem tabaski ci seen dëkk yi ñuy xool naka la ñuy def nag ba li nga xam ne moom mooy accident yi nga xam ne ñi ngi am ci Euh, tali bi euh, daal di wàññeeku foofu nag la ñu jaaree mbokk yi daal di jeexal li nga xam ne moom mooy la euh, revue des titres bu ñu ci jógee nag ñu daal di jàll directement Kourouzita ci suñu actu commenté tey nag ñuy waxtaanee baisse des prix des denrées Ousmane Sonko va annoncer les mesures jamono ji nag ñuy wax ak yéen ma ngay amal li nga xam ne moom mooy conférence de presse fële nga xam ne moom mooy ca primature ngir àddu ci baisse denrées yooyu de première nécessité nga xam ne boobu ba tey nag ñi nga xam ne ñoom ñooy sénégalais bokk na ci liñ doon gën a xaar ci nguur gi fi euh, toog Cruzita. merci beaucoup Rama ca mbokk yi mi ngi noonu c'était la revue des titres ngeen naanoon si ak Rama ñu koy remercier bu baax a baax euh, comme ni mu ko waxee sunu actu commenté tey euh, baisse des prix des denrées Ousmane Sonko va annoncer les mesures doyen comme ni ko Rama annoncé léegi rek